développement uhum. nice fu ñu ko eu yi mu ngi dama sexe dama vulgaire affaire yooyu daal uh, uh, pourquoi essence bi mu bëgg a incarné loolu ci bopp tout le sexy Tudo sexy et je serai toujours sexy pour ñu ko xamal. daal ni ko ni ko mën a waxee que ñi nga xamante ne si ñu ngi ci TikTok bi wala ñuy def ay vidéo yaakaar naa a dinañ am lu ñu a a parce changement du am changement parce que ñun duñ ma changé man je serai toujours Fifi Dro mm-hmm. et eh, je resterai Fifi Dro kenn mënu changer sama style de vie gis nga fii bu dee bu ñu wax fii ñëppay ñëppay def lu yàlla santaane dama tax ku dee doo ko gis du wax fii ku dee xamul loo fay fekk. tay jii ni mun naa tay di nek di ibadu di tok si kër gi di tok di tok di tok bu ma dee yàlla na mi fi dara lu tax léttu woon mees lu tax togoo greffage solo bu gàtt la ya? laa <laughs> wax ratna sama bi fi kon ku nek na dund dundam ku dee sa bàmmeel ma suma ma sama bàmmeel la kenn du ma ñëw àtte su may di ma mugal moom kenn du ko fekke kon bàyyi sama istindal fi mais mais mais aussi te euh, def loo xamante ne si bu ëllëgee euh, gars yi dinañ ko xool rafetlu ko aussi loolu jar na bàyyi xel. gis nga jéego am na ji bu amee xaas tout va bien ne mhm. soo dekkee ci pauvreté nag ñu sulli la seen bopp su ma amee doom sama doom dinaa ko jur avec fierté sama doom kenn du ko yeb na samay taat kenn génne ko ci àdduna bi. non la laa sol ay daggit fii ñëppay sol daggit. ci Sénégal ngay sol dagg ñu nekk di wax te ñu nekk ci kër yi ñoo gën a bon. waaw ñoo gën a bon ñu nekk ci kër yi. ah jigéen ñi putain yow xam nga lool yow ñuy toog foofu xale yi di toog di muusal seen bopp yi toog di jaay gerte jaay ñooy biir man ba tey j'ai quel âge je suis pas grand mais ba tey dama téye samay taat. sama biir mais mais mais bu jàpp que ni instant bi mën nga ci mucc parce que parfois loolu dogalu suñu borom lay nekk ci nit ki.

sama xol dara néew ci mais am na jigéen ñoom tamit seen xol setul man góor ñi ñoo ma ëppal importance parce que tey jii nii dara su xewee mun nañ ma taxaw mais jigéen hee mon Dieu pardon. dama yàgg dama yàgg bëgg doon star ça je l'ai dama ko yàgg rêvé. tout le temps dama ko doon wax sama yaay dama ko ne man dama bëgg doon star loolu moo ma poussé. ma dugg ci réseaux sociaux amoon naa beneen compte mais compte boobu yëkkatiwul ma bàyyi compte boobu ci laa beneen compte ma def bébé draw ñoom bébé draw bi nga xam laa commencé am benn grand boo xamante ne dafa ma sànni moo bu vulgaire dama naan sax grand boobu maa ngi koy remercier parce que grand boobu moom moo ma yëkkati parce que moo tax ba vidéo boobu ñëpp vu ko muy traversé monde entier c' est vrai que du dara de mais. waaw vidéo bi grand bi dama defoon benn vidéo man dama bëgg sama yaay grand bi saaga ma si laa jëlaate saaga bi saagawaat ko. ma defee Fane kii bu ñu ko hospitalisé woon clinique Moussa Diop hmm. ñëw presque dama naan journée bi vie yu bari laa ci am parce que ñëpp ñu ngi doon ñëw naan Bébé bu saaga jigéen nga na na ni patati patata mais pourquoi ça. parce que un homme am droit di ñëw di dugg ci live jàmbur di saaga wala di dugg ci vidéo jàmbur di saaga ça veut dire que góor ñi respecté tuñ seen yaay c' est ça que je peux dire ñoom li ñuy bañ a dégg loolu laa leen wax tout man chaque jour maa ngi fii saa bu ñu ñëwee di ma attaqué maa ngi fii mais man comprendre ma sax lan moo tax ñii di dugg sama live di ma saaga lu bari parce que wane ma dara loo xamante ne lu ñaaw la dama sexy. est sexy non dama sexy sama nature man américaine la duma sénégalaise américaine donc ça veut dire que même fait si parti sénégalais la nek américaine là, tu vois donc je veux marcher. mais est-ce que vous Fifi sexe dama nan legui bo defé sax ay vidéo yo xam tane ne sa yaram yëpp kenn la aimé. lii li dafa doy quoi. kon dama nan non dama sexy parce que xalé la dama wara sexy. boo hmm. euh, nga ak dama naa daanaka depuis ba ma commencé sama TikTok nit ñi di commencé di wax muy commencé dal suñu kër chaque jour ma si biir ay wax chaque jour sama yaay su ñëwee dina ma wax sama mag yi dañuy ñëw di wax sama nopp yi baal TikTok bi sama mag bi ñëwoon na ba ne ma effacer TikTok bi nga def sa vidéo bi yëpp man ko non non parce que yow yaa ma jënd téléphone. waaye te te foo jaar man dinaa doon instant bu soobee yàlla bu neexee yàlla suñu borom. maanaam forcément daal ma sol la te duma ko dindi tànkee doonu ma ko. ok neex na ma neex kii bi vidéo bi mën na neex ak euh, geste am na geste yoo xam te nit mën na ko def mu neex la. Euh, loolu euh, man góor nag boo wéngalee sa kab rek mooy gañe nga <laughs> man américaine laa. tu Euh, xam naa ne dañuy ñëw ca émission bi. Eh, mais gars yi gars yi Sénégal est-ce duñ ko jaay is ce que duñu jaay réew mi ku nekk xool foo jëm instant yi gars yi affaire bi mu ngi gën a kawe nag niveau bi instant yi mu ngi xaaral <laughs> ma demee naan sama morom laa <laughs> ilaaha illallaah mais kii ana seen waa kër kii ana yaayam ak papaam kii ana ay famille te yow fi mu doon nii bëgg nga nekk star force force doole mbaam da ngay nekk star yow bañu dara quoi instant bii nii problème yaa ngi soobee démarré nag. xam naa fan yi damay jéem a xool nu may def ku dem ay côté Gambie yooyu wala Mali quoi ba leen ma gisatu rek xam leen ne maa ngi foofu parce que fi mu toll nii instant yi niveau bi dama ko attanatul niveau bi nga xam ne rythme bi nga xam ne moom la Sénégal di dawee actuellement nii man attanuma rythme bi jéem naa essayer def naa lu ma mën pour jéem a gérer affaire bi mais gars yi jur gi cam La ilaha illallah. Ah. So, xale bu jigéen bi nekk nga star nag star yi moom bu fekkee star rek nga bëggoon a nekk nekk nga star parce que moom fi mu toll nii yaay def bës man star man dama mënul mënu mënuma comprendre ba léegi nii mënuma comprendre affaire bi quoi. te kaful yéen yéen a fi nekk di kaf di def seeni affaire mais kii kaful loolu laa bëgg ngeen xam ko kaful kaful de star la bëgg doon te staram boobu jaral na ko lu nekk yoonam la teg xaalu ko képp ku taxaw si yoonam dalay fel jàll moom jikko terrain la yor actuellement nii nag ku bëgg jàmm bay ba nga xool lu rafet ci digganteem ak star ndax dafa jël star fas ko def ko doomu ndey def ko xarit def ko mbokk def ko àndandoo def ko nijaay def ko bajan yow sax am naa benn idée pour yow xam naa ne yow fi mu toll comme star nga te xam naa da nga bëgg di sol ay yére star kaay mu boole laa kii muy saarata gis nga kii boo jëlee numéro diglu li bu baax numéro bu ma nekk nii boo demee foofu comme yow star nga nekk dina la jaay ay yére star bu ko defee ngay sol ay solu star di ab habillé wu star te dinaa ko wax ne ko man maa la boole moom dinaa ne ko kooku di ñëw foofu sama client la buñ ñëwee na ko defal xéewal parce que star la bëgg doon te yow da ngay jaay ay yére star demal ci saarata mu jaale yére star su ma paree léegi dinaa ko woo dinaa ne ko dinaa boole yére star boo xam ne fi mu nii euh, <laughs> star yi moo mi star yi moom xaw ma bi mu tudd la ah ñëw dem sama yoon man damaa xajatul fii quoi.